ayca jërë ngeen jëf mbokku internet yu ñuy déglu à travers partout dans le monde à rawatina yéen ñi abonné chaîne bu mag bi ñuy wax Galsen People Cheikh Niass nag moom nag këram dañ ko bëggoon Dadi, dajji dem bay bëgg taal lii di otoom audio bi nag moom moo ko pour leeral mbir bi ni mu demee. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, maa ngi leen di nuyu di leen ziar sen mbokk seen xarit Serigne Cheikh Tidiane gëna a ci dofu marabude Khalifa ñess Mangi masau Ousmane Sonko mangi masaw suma euh, frère suma andandor ci dëgg muy Cheikh Bara ndjay waaye it di masaw sama bopit, it ak mboolem sama mbokk yo xam wax dëgg neex yalla buñ tëddee nelawatun waaye nak ñun suñu bakkan bi comme Ousmane mo mën a bu bosam yalla wax ma la ñun ñi nga tawakul suñu lepp dañ ko tawakkul ci suñu borom euh, dama julli ci fajar bay ñew tombé sama gardien bi dem dañu am fi ñaari garde corps si buntu kër gi bi garde corps yi bi gardien démé euh parce que heure bob lay réservoir bi garde démé ma jogé ci juma ji wosi fa ci sama tel gi ba pare fajar gi ñibbi ci buntu kër gi ka garde corps bi muy dem dafa faté tej buntu kër gi hmm, xamna nak bo démé ki doon dajji buntu kër gi ñëmé wut 100% biñ dajje dajji dégg luy bir wi daw frappé bunt bi ñoom génn euh, ki ma dëkk ak ci kaw nag nee na ma ñeenti nit la ñaar ñi ñu ngi ci benn moto yeneen ñaar ñi ñu ci beneen moto bi ci kanamu jàkka ji fa lañ seen moto bi ñu ngi kàggalewu sol ay kii yu ñuul seen bët yi kese mooy feeñ dañoo njëkk a oto bi ci li ma wax nee na dañoo njëkk a oto bi kërëng-rëng moom ci boppam comme ci kaw dégg mu dégg kërëng-rëng mu ne koo kan la koo kan la dégg waxun mu toog tuuti ci la fekk xam naa ñaar ñu doon dajj kanam bi pour costal la woon wala pour dara am na ñaar ñu nekkoon ci biir appartement bi pour dajj buntu kër gi buntu appartement bi ci la paa bi dawee comme moom ancien armation la ci la dawee wàcc dégg lañ ñu kii frappé buntu bi daw biñ dawee nag frappé buntu bi xam naa paa bi may wàcc wàccu toog caabeem buntu bi bu frappé woo caabi rek moo ko mën a ubbi paa bi fi muy dawaatee pour fi muy yéegee pour jëlee caabeem pour wàccaat ma mu kii ñoom ñoom daw bi ma wasi fee pare bi ma jógee jumaa ji ba ñëw ci lama ko wax ne ma sa auto bi dañu daj kanam bi doon ko bëgg a kii doon ko bëgg a xaw ma lu xew ma reetaan rek noppi mu ne ma même buntu kër gi ñu ko doon à part loolu it yàgg nañu jot ay ay saaga ay appel yoo xam ne kenn xamut fii nga dëkk nangam nangam danañ la rey danañ la nangam boo bàyyiwul tiw dañ la yàq nangam mais ñi ngi xamal nguur gi ak li ko wër ne leen li danger la ci réew mi nañ ci jël seen matukaay buñ ci jël seen matukaay ne dana mujjee foo xam ne danañ bëggoon mu neex leen mu taleen euh, benn ñaareel ba mooy euh, ñun combat bi ñu apporté Ousmane Sonko ragaluñ ci tey ragaluñ ci ëllëg su ma fekk ñu lakk sama oto ba mu jeex lakk sama kër ba mu jeex ma moobule waat ko commencé waxaat lu gën a pire la ma doon wax ci Ousmane Sonko ci lu baax commencé sensibiliser waa sa ndaw ñeeg mag ñi ñëpp ñu gën bëgg Ousmane Sonko parce que Ousmane mooy réew mi ñun réew mi lañ bëgg réew mi ku ko bëgg wane wane ko ci sa doxali nag sañ jàmbaarte bëgg nañ lu ko raw yi ñu nag voilà président Macky Sall ñu ngi lay xamal ne la yàlla la ëpp nguur foof te du nii lay doxalee nguuram yow ak ñu ànd ak yow boo yegee lii mm, wax ci boo ko yëgut wax ci lii mooy wax juñ mën a wax ci loolu méttiwut ñu nag lii sant yàlla lañ ko def parce que tax ñu def ko sant yàlla mooy booy ne ci mbir ba yàlla nattu la ca xamal ne mbir moomee maanaam euh, wax dëgg na yàlla la doon la ci sa devoir mat na sëkk kon ñu ngi sant patriote yëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf